après am lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay ingénieur yoo xam ni daañu nekk fii di ci gëstu ànd ci ak ñeenti junni ci ay nit ñoo xamante ni li ñuy yëngu rek mooy li ñuy wax numérique maanaam jumtukaay xarala yu bees yi nga xam ni dafa àndoo ak euh, jamono mel ni nag bokk na ba tey ci biir plan Sénégal émergent loolu nag moo tax président de la République doon ko inauguré tey dina Omar Gningue Thierry Breton ak euh, ñi mu àndal kontaan lool ci teewaayu président de la République bërëb bi nag Atos di ko daloo ci senegaal waaye tamit toogal fii Afrique sowu jant yëpp muy wane ni Sénégal dëkk bu am solo la euh, ci wàllu jumtuwaay yooyu bi mu yegsee nag njiitu réew mi visité na installation yi nekk ci bërëb bi di wane rek liggéey bu am solo bi Atos di def fii ci suñu réew gannaaw gi nag njiitu réew mi yegsi na ci mbooloo mi fii nag kàddu yu am solo jib nañ fi bokk na ci ndaw yi nga xamante ni Atos moo leen jox xëy gannaaw ba ñu jàngee fii ci senegal waaye tamit ba ñu nekkoon étudiant euh, ca bitim réew jàng ba noppi dellusi fii ngir jëriñ seen réew mu nekk loo xamante ni njiitu réew mi rafetlu na ko lool Thierry Breton nag di njiitu Atos wax ni moom lii nga xamante ni def na ko dara waralu ko loolu rek gëm bi mu gëm plan Sénégal émergent bi président Macky Sall sumb ci loolu sax nee na am na liggéey bu am solo bu mu nar a def ci Diamniadio ak centre bi mu nar a tabax foofu su ko defee Atos mën a jël lu toll ci ñaari junni xale jox leen xëy njiitu réew mi nag kontaan lool euh, ci teewaayam fii dellusi si rek wax liggéey bu am solo bi Atos def jëmale ko euh, ci moom li mu sumb su ko defee Sénégal naat ñëpp mën ci jëriñu ci loolu sax ñu ngi ñaan ndaw yi ñu gën a bàyyi xel ci njëriñ bi science ak technique am ci wàllu njàng mi naam sax enseignement général am na solo waaye science ak technique ak formation professionnelle moom mooy tax boo génnee pare sa njàng mën a am xëy ci lu yomb balaa mu doon jóge ci bërëb bi nag njiitu réew mi bind na lii nga xamante ni moom mooy mbégteem ci livre d'or bii mu signé di ci ñaan rekk Atos mu ànd ak moom ngir rekk su ko defee wàllu jumtuwaay yi xarale yi Sénégal gën ci jëm ca kanam ni mu ko namee moom njiitu réew mi ci plan Sénégal émergent Seydina Omar Njing doon dellu si ci inauguration siège bu Atos bu Afrique de l'Ouest wax naa ko léegi juróom ñaari téeméeri junni ak juróom fukk ci ay xar moom la ñuy xaarandiku fii ci Sénégal ci tabaski 2016 mel ni nag euh, bi la yoon daal nguur ki jël na matukaay yëpp ngir fexe ba ku nekk daal mën a am xar bi nga xam ne moom nga bëgg loolu nag ñu ko doon waxtaane tey ci ndaje boo xam ne premier ministre moo ko jiite woon waxtaan nañu itam ci wàlluk euh, lii di waaye itam kaaraange jur bi ci jamonoy euh, tabaski bi loolu yëpp daal ngir fexe rek mbir yi gën a yemb sëñ bi Habib Mbaye fexe ba Sénégal am ay xar yu doy waaye tamit fexe ba lépp loo xamante ni bi daa aju ci gouvernement bi ak ci yi ak tamit lépp loo xamante ni bi maire yeeg gouverneur yi ñoo ko war a def ñu càmbar ko bu baax a baax loolu rek moo waral ndaje mi waa élevage njiital ministre Aminata Mbengue Ndiaye ñu xool li nga xamante ni bi mooy doxal mbir mi ba fi ñu toll nii xam nañ ñaata la Sénégal soxla ci wàllu xar ci atum ren bi lii ñu soxla ci xar ci biir Sénégal toll na ci sept cinquante mille xar ndakaaru kese itteewoo na deux cent soixante mille donc faw ñu dem gannaaw ñun li ñu mën a produire suñu bopp faw ñu jéggaanu tuuti ci réew yi nga xam ne seq nañ ko ak ñoom tàmm nañ ko fay def te diggaale nañ ak ñoom muy réew yoo xam ni benn bi mun nañ ko wax Mauritanie benn bi Mali fa lañ ko tàmm di defee ministre de l' dox na ay yoon yu bare dem na def repérage am seet na ñoom war a seet dalal nañu xelam wax nañ ko ni ko lañ ci war a am yëpp incha allah dina mat waxtu wi jotee. ba looloo waral am na enveloppe boo xamante ni bi waajal nañ ko lu toll ci milliards ak juróomi téeméeri millions ngir jàppale ko ñi nga xamante ni bii ñoo yëngu ci wàllu xar yi. financement bi nag teg nañu lu topp ci lu mat milliards ak genn wàll pour nit ñi waaxu dem crédit agricole déposer seen ay que lettre ba ko waroon a amal ministre de l'élevage jël na ko depuis le mois de février ba tax na am na ñu bare ñoo xam ni déjà dem nañu ba seen dossier jël nañ ko pour ñu financer ko donc nit nañu gaaw te app yi nga xam ne moom la institution financière yi joxe bu doon seen sago balaa ñuy yegg ci diggu mois d'août ñu boucler dossier de financement yépp ñu jàpp ni crédit agricole moom ci wàllu boppam rek teg na lu mat milliard ak lu topp waxatuma nag li nga xam ni seen euh, crédit mutuel teg na ko liggéey boobu nag am na ci loo xamante ni bii ci gouverneur yi la aju ak ñi nga xamante ni bii ñooy yenn ministères yi waaye tamit ak maire yi ngir fexe ba li nga xamante ni mooy daral yi fi ñuy jaaye xar yi ñu mandargal ko xam fu ci nekk fañ koy defee bu dee Dakar nag xam nañ ñaata la ak yan matuwaay lu ñu jël ngir gën koo yëwanal. ministre bi proposé na fanweer ak ñeenti point yoo xam ne ci lañ koy jaayee fii Ndakaaru te ci point yooyu war nañu am la war nañ fa def lañ fa war a def yëpp sécurité bi war na fa am agent préventionniste yi war nañ fa nekk poste de santé war na fa am ak aliment bétail war na fa nekk ak béréb yi nga xam ni pour nit ñi war na mën jël seen ay dispositions yëpp dinañ leen ko fa defal donc ministre bu ci ne premier ministre jox na la tegtal ci wàll wi nga xam ne fa nga féete pour nga jël matuwaay yi pour la fa lañ fa ittewoo yëpp yëpp mat jamono bi nga xamante ni mi nag Sénégal daa fas yéene bañatee jéggaani wàllum xar mel na ni gouvernement bu Sénégal jël na matukaay yu bëree bëri ba loolu gën a mën a yéwén te jamonoy tabaski gii seetlu nañu ni loolu ci lay gën a ëpp njariñ taux de croissance bu Sénégal def ay jéego yu am solo diggante 2012 ak 2014 loolu nag xam ne dañ ko ci ndaje bi nga xam ne moom lañ doon amal tey di saytu lépp loo xam jëm na ci wàllu politique bi nga xam ne moom la ñu amal jamono yi ci wàllum koom fantaba ji koom-koomu réew mi gën naa yewen jamono ji ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu koom-koom dañ doon xayma lépp li nga xam ne jot nañ ko amal ci at bii ñu génn. mu nekk ay résultats yoo xam ni. dafa méngoo ak li nga xam ni mooy li président de la république doon xaar ci ñun donc ñu war a rafetlu liggéey boobu nga xam ni moom la CAS def waaw résultat yi gis ngeen ko léegi mooy euh, euh, lépp loo xam ni président de la république joxoon na ko comme niveau la ñu war a def en commençant d'abord par la création du CAS ak lu fonctionnement du CAS Euh, fépp loo xam ni recommandation yi ci gën woon yëpp mënu ma leen lim fii ñoom ñëpp mais recommandation yi mën nañu wax ni presque à quatre-vingts pour cent euh, réaliser nañ ko yi nga xam ni sax réalisé guñ ko def nañ ci ay jéego yu am solo mais suma xel dal na bu baax ci nii vraiment le Sénégal est sur la bonne fois lu ëpp ci li sabab lii bokk na ci liñ doon jëfee pàcc bu njëkk bi nga xamante ni mi ngi aajo ci programme bi ñu duppee plan Sénégal émergent ci loolu sax tax nañu mën a xayma bu baax. lépp li nga xam ne nguuru Sénégal def na ko ci ay jéego ci wàllu koom-koom. boo seetloo Sénégal nga comparé ko ak résultats yi nga xam ni moom la ñu amoon ci yeneen politique publique yi mën nañ sant yàlla ci nii véritablement le PSE mi ngi avancé le Sénégal ko dee seetlu d'ailleurs bari na ay critiques yoo xam ne c'est normal ñu ngi koy def sur le plan de politiques de façon générale mais politique publique yi nga xam ne moom la ñuy def mu fondé wu ci sur le PSE boo dee lu bariwul ay critiques yu ñu ciy def te dama leen di xamal ni leen PSE bi noonu ñu ko nawee fii ci Sénégal ni ñu koy doxali noonu la ko étranger yi nawee parce que boo demee en Chine xam nañu lan mooy PSE naw nañu PSE boo demee aux États-Unis dans le cadre des institutions de la Banque mondiale ou du FMI dañu naw PSE. ñi jàppale Sénégal ci wàllu koom mu di partenaire technique ak financier yi rafetlu nañu bu baax jéego yi nga xam ne nguur gi def na ko ci fànn boobu sax kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo banqaasoo ci jëwriñ ji yor wàllu koom ñoom ko ci nekk def nga sa xayma bopp téere bi ñu nar a tënk nag moom la ñu bëgg a jébbal ki nga xam ne moo di njiitu réew mi. xam naa ni léegi nag moom ñu dëkkee ci booru Soumbédioune mu mel ni ñoom Alioune Badara Gueye Badou xam naa ni léegi nag dañ mën a am jàmm ak gaal yi nga xam ne kenn mënul woon a ràññee ko moom ndax léegi nag gaar bu nekk am na mandarga ak numéro nag ministre de la pêche nag moom moo ubbi opération boobule Ndeye Aïda Dia ni oto yi amee plaque d'immatriculation noonee nañ bëgg gaal bu ne am ko loolee nak di mbébétu nguurub Sénégal lim ci moom mooy fexe ba nappkat bu ne foo ne ñi mën ko xam xam itamit jën bi nga napp ana fu mu bàyyeekoo leneen lu am solo mooy fexe ba taxawu nappkat yi ginnaaw bu ñu amee ay jeexi jaaxa ci géej gi. soo jëlee sa gaal ñu defar la ci numéro immatriculé da koy jël jëlin bu rafet ne dañu bëgg a xàmmee du lu bees lañuy teg pour ñu lébu yi nag dëgër nañ trop ci bëgg conserver ca la ñu newoon mais bii da di nangu njariñ la. njariñ identification njariñ sécurité ci seen bopp dañ ci sant gouvernement bi sant ci ministre bi parce que àdduna dafay progresser. Soumbédioune nag moo tàmbali waaye lu jege ñeent fukki junniy plaque dinañ ko joxe. ku gis gaal bi nga xam ne moom la ñu def muy DK 3790 SB di nga xam ni gaal gi dakaar lañ ko immatriculé mooy DK bi SB bi mooy Soumbédioune ku taseeg moom biir géej déjà di nga ko mën a localiser fu gaal gi jóge gaal yi nekk région de Thiès TH lay doon gaal yi nekk Ziguinchor ZG gaal yi nekk Saint-Louis SL et cetera te ku nekk dañ lay méngaleeg fi nga xam ni fa nga bokk di fa teer loolu dafa am solo ndax ku ne xam na ni napp bi fi mu toll nii jën yi ñu soxla moo bare ñu bare dañ naan na géej gi amatul jën géej gi desandi na jën mais njaween yeeg sekkeen yi ñoo bare léegi barewaay boo xam ni géej gi mënatu leen jox jën bu doy kon fokk ñu def ci attention ci ni ñuy nappe fokk ñu contrôler pression bi ñuy def ci géej gi loolu nag pour ñu xam ko fokk ñu organise secteur bi mu di nag loo xam ni Sénégal Banque mondiale moo ko ci jàppale mu bëgg itamit amal ab registre d'embarquement teg itamit projet géolocalisation nga xam ne ni nappkat bi fu mu toll ci géej gi rek dinañ ko mën a xam muy lu am solo ci doxalinu ko lii di napp gi napp gi sax dinañ ci amal ab gëstu boo xam ne soxna Ourey Thiam PRERA dina ko indi dina indi itam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu modernisation maanaam fexe ba looyu di ay gaal gën a ànd ak euh, jamono balay boobu dañuy dalal Fatimata baneel baa tey ji amoon ab atelier boo xam ne dañ ko jagle li ñuy wax changement climatique maanaam soppite yi nga xam ne tey faral di am ci li ñuy wax euh, climat bi Fatimata Banel Ba yokk dooley kuréel yi nekk ci dëkk yi ngir ñu gën a mën a xam lan mooy indi coppite yi ci wàllu jaww ji loolu moo tax a jóg projet bii di AKIK nga xamante ne yegsi na ci njeexitalam. ñu am benn projet bu ñu naan AKIK projet boo xam ni waa Danemark dëkk bu ñu naan Danemark ñoo ko financé woon pour dimbali dëkk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sahel commencé fële ca Tchad ba fii pour xool nañu mën a renforcer seen capacité ci li nga xam ne mooy coppite climatique. léegi projet boobu nag muy 17 pays ñoo ci ñoo ci bénéficié wu ñu nekk fii ci Sahel mais nag dañoo jël 17 yooyu tànn ci ñett ñoo xam ni fa la ñuy def ay projets yi nga xam ni dañ koy def ay projet pilote lañ koy wooye mooy fa la ñuy essayé càmbar mbir bu baax a baax ba xam ko ci diiru ñetti at amoon nañu ay activités yu bëri ngir askan wi gën a mën a moytu lépp luy na sa xal jaww ji am nañ ay station ay nattuwaay yu ñuy defar ci pays yooyu di euh, leen aussi si diffusion information parce que information bi doyul rek nga am ko mais il aussi nga fexe ba nit ñi mën cee jot moo taxoon ay rajo communautaire aussi bokkoon ci beneen bi aussi mooy li ñu euh, formation renforcement de capacité mooy taxoon fexe ba nit ñi càmbar leen bu baax a baax pour ñu mën a comprendre li wax mën ko utiliser outils moo taxoon aussi ñu former leen ci ay ateliers yu bëree bëri former leen mat 100 euh, personnes jaare ko ci kuréel gii di SILS ak ci njàppandalu Agrimet ñi bokk ci lël bile fas ñu yéene wasaare lépp luy tukkee ci yile waxtaan bu ñu delloo ci seeni dëkk Fatimata Banel Ba léegi nag ñu yegg si ci li nga xam ni moo di pàcc bu yaatu bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu weeru koor gi mu di ay reportage bu ci jëkk nag euh, day fàttali rek li nga xam ni moo di xeexu badar ba xam ngeen ne fukki fan ak juróom-ñaar su jotee rek ci li nga xam ni moo di weeru koor gi xel day dem ci xeex boobee nga xam ni nag dafa doole loon lislaam bu baax a baax ma nga amoon ca en deux bu égir mel ni nag ak léegi moom euh, lislaam ma ngay rek di gën di jëm ca kanam fàttali ak soxna xare Badr mi ngi amoon ñaareelu at gannaaw ba yonent bi gàddaayoon muy bi islaam doog a feeñ jullit yi sonoon lool ci ay xeetu noot ak bundu gu métti ba tax rekk yonent bi bëggoon koo dakkal naq na ni ñii ko toppoon bi moo jóge màkk di ñëw Medina seen alal yëpp bàyyi nañu ko màkk waa màkk sax sax seeka yàq ko seen njaboot seen alal benn li ko tax a jóg ñaareel mu ni waa Makka kat am nañu doole lool lool ndax comme kom comme comme Arabie saoudite daanaka fala fala ëppoon lu mu nekk yoon bi sax ni kon moom foog mu wàññi doole waa Makka moo tax mu ni ñi mu na leen dogale ji dëgg ba fu ñu kaa dogale ji Badar Badar fu mu nekk si diggante Makk ak Medina. bésub xare boobu ab ajuma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru Ramadan leen rek muy teloon jullit ñi muy fexe rek ba moom seen bopp tàggalikook rekk xoqatal waaye nag doole yi yemu loon xureesit yeeg yéefar yi ñu àndaloon ñoom matoon junni jullit yi ñoom ñetti téeméer lañ woon waaye yàlla may leen ndam lu rëy. yaa ni moon dooma bàyyi yaa ni moon fu ma toll moo jafe-jafe fekk daa ma dimbali daa ma jàppale taalal loxoom yàlla di ñaan yàlla wax nañu rangoo ñu tuur na wax nañu bi mu tegoon si kaw ñu wadd na waaye yàlla ñëw mu yebal gaañam ñu baax ñi ñii nii jun ay junneel alxuraan wax si ne ne nettaleem ay junne moo tax borom xam-xam yi tëkkuwuñ ko si benn junne wala ñaar mais li ëpp dañu ñetti junne malaaka ñoom ñoo wàcc si jàppale rasulullah sallallahu alayhi wa Badr bokk ci taarixu islaam ndam lañ ca amoon sigil ba tax ñu doxe fa rek am jàmm ci lu bari biñ demee fu màkk waa Màkka gépp d'accord ne léegi nañ ànd ak Muhammad jaayanteeg moom bu ñu xeex ak moom kii li mu àndal ci soldaar fukki junney soldaar ak ñaar la àndal dugg Màkka ba mu jubee Màkka lu toll ci cinq kilomètres ñu daldi daw gàrtandu ko dañ ko gàrtandoo nag ne ko yow doomi Abdullahi ji ak Aminata xam na ne ku baax nga sunu mbokk nga léegi danoo bëgg ñu defante benn lamaane nun ak yow waaw mooy li ngeen di wax daal confiance mu ne ko nu ngeen ko bëggee ñu ne ko dañoo bëgg nga wax lislaam bi ngay woote la mu bëgg ñu ànd ceeg yow la mu bañ ñu bàyyi ko weeru koor la amee woon lu ëpp nag junniy at ak lu topp rekk xare boobu am na ko tey jii nag islaam law na fépp rekk ci àdduna bi mu doon eh, axam ndaw di dellu si doon fàttali rek eh, xeex boobule di xare badar démb indi nañu reportage boo xam ne ñu ngi ko jagleel traite ñi nga xam ne ñoo di tàggkatu yenent bi sallallahu alayhi wa salaam ndax nag eh, seen traite mi ngi dox wala doxul indi nañ ko démb tey jii dañuy seeti ñi nga xam ne ñoo di jaaykatu kurus yi ak ñi nga xam ne ñoo di jaaykatu jullikaay yi ñoom it ndax seen traite mi ngi dox dañ koy laaj rek Fatimata Banel Ba bu weesoo li mu doon weeru jàmm yàlla ak wéetal sa boroom koor gi occasion la itam ngir yenn njaay yi gën a dox waaye fii ci avenue Blaise Diagne ñu ñu seetlu moo lii du njaayum kurus ak yenn téere alxuraan yi doxul bu baax. liggéey bi année bii nga moom dangay ngay waaru waaw xam nga bu jikk eh, ñun rek ñoo doon def mais léegi am na xale bu jigéen bu fi dugg mënuñu nas. tam ñiy jënd yi xamuñu lu baax xamuñu lu baaxul da ngay fekkee per ñu ngi ci ci wuñu rek nga jëndi deux jours trois jours nga dem ma dagg waaw tam bu jikka balaa nga defar course fokk nga jàng nga jàng course man par man jàng naa deux ans mais léegi taabu si naay bii ñëw fii da ngay jënd rek nga jindi soo mees nga koy lakk. njaay mi bu njëkk da dox bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla bu njëkk moom koor gi bu masaan a ñëw lu mu gàtt gàtt. mën ngaa gagné 2 millions ba 3 millions waaw waaw ne ci weer wi waaye nag ren moom wax dëgg yàlla 300000 pour nga am ko sax ci téere yi sax yombul. ci wàllu njëg yi lu waaye am rek am li nga bëgg. kaamil am na 12500 am na 14000 am na 15000 am na 2500 am na 3500 ba 2000 ba 1500 am na waaye façon kaamil bi nekk nañuy jaay. e so jaɗɗo min jeyɗo henne so an déppa e cajjaɗi en waɗi jaroyɗo e temedde nayyi waɗi jaroyɗo en ujunere en waɗi jaroyɗo e e woni sept mille ko san déppaji e kursaji noon ne waɗi jaroji 10 mille en waɗi 15 mille en waɗi waɗi 500 sans départ e jomum no yiɗir dal fof kam nen ɗo hen eyyi moon fof e a heɓat ɗo henne ko weeru su ñëwee ñu bëri taamu nañ di jënd ay jumtukaayu julli waaye teewul njënd mi moom demewul noonu ba léegi. avant weeru koor moom ñu ngi doon jaay moom mais weeru koor moom xaw na am jafe-jafe tuuti waaw. kursajen defteen laafajen kaalajen ɗo won komin mbaɗata cajjaade eggede way zamzam eyyi eh, alhamdulillah aɗa andi kam euh, sénégal ko noon tan so arti ha eh, ko tolni ko wayno événement uji wayno korke en walla ɗum ɗe en ɗiɗon alhaaliji en dogɗo henne seeɗa quoi leydi sidiada kurus ak ay téere alquran lépp la ñuy jaay jamono yi waaye jaaykat yi moom ñi ngi ñaan yàlla rek ak di dundee yaakaar ne balaa weeru koor wee jeex yëf yi gën a dox na fi gën a dox incha allah Fatimata Panel Ba may fàttali suba incha dañu dellu si ci reportage Fatou Diouf bi ñu jagleel centre culturel régionaux yi ak ENA orchestre national jot ay jumtukaay yu am solo toll na ci ñaari téeméeri million ak juróom benn fukk ak juróom ñett yoo xam ne nag dañ leen ko doon baaxee di leen jàppale ci liggéey bi ñuy liggéey dañu dellu si itam ci reportage yu Ourey loolu lépp ci ëttu xibaar yi leen ajaxatu xama booy di indi lay doon ajuma samedi ak dimanche balay boobu juróom-ñetti waxtu laa jeeju ci xibaar yi ci nasaraan mbokk yi di ñaan rek lépp loo xam ne war nañ ko ci bëccëg bi yàlla nangu ko di leen ñaanal ndokk jàmm ak salaam